maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare tey nag dama ñëw ba Kër Madiabel ànd ak sama frère Kayre waaye ñëw seet si waale suñu xarit Lamine Niass. di grand patriote Kër Madiabel nag man fii laa jàngee. voilà fii laa jàngee presque fii laa defee sama enfance yëpp tey nag Pastef Kër Madiabel ñoo aye moo tax gars yi d'habitude bu ngeen ñëwaan Kayre euh, Kaolack ngeen di yem. Mhm. mais tey ñëw romb ngeen 33 kilomètres. Mhm. ñëw fii Kaolack seet le coordinateur bi Mamadou Lamine Mbow ak ki nga xamante ni mooy mais tey bi ñëwee ci tali bi lamiñu daal dafa am lu am solo loo bàyyi xel ci tali bi muy par rapport ak montage yi nga xam ne ñoo ngi ciy am nga dem noonu dina ci waxtaan mm-hmm. mais yow sa jàngat naka ne euh, bi daf cee wax démb mm-hmm. ne dinañ jox euh, policiers yi mm-hmm. ay yoo xamante si nii day am caméra surveillance yoo xamante si nii day wàññi ger gi nga xamante si nii chauffeur si ñi ngi ko doon kaas ne montage yi ak samp bi dafa bari danañ fexe ba wàññi loolu waaye danañ fexe ba nga xamee ne si ni loolu ñuy liggéey dina feeñ seen salaire loolu nag tey jii sénégalais yëpp dañ koo apprécier rafetlu ko Kairé ku ko xam-xam ne ku yàgg a kaasal sa góor la waaye Kairé ngalla lii ministre de l' intérieur indi na ngeen a war a fexe ba wuti ay papier yu mat parce que yéen a ko yàgg a kaas parce que nag Kairé damay ragal ngeen ñëwaat fii mhm. di def ay marche naan na ger ñëwaat ñeme ngeen ko xam nga lu tax waaw man li may ñaan euh, bi mooy mhm. oto yi nga xamante ni dañuy si camion comme camion la maîtriser mais da si am oto yoo xamante ni dana war a am ñaari carte grise mais bari na camion yoo xamante ni benn carte grise lan yor na deg daan transporteur yi ñu yor oto yu baax jënd pneu yu baax accident yi si bari ñàkk wala oto yi si bari barke rasulaay ñuy def accident daf kii monté ñu pneu yu baax ñu jóg rek ñu xëpp ko chauffeur yi nan dal si transporteurs yi mënuñu di am xaalis ci amuñu ay matériels yu baax mais chauffeur tamit dana dal seen kaw parce que bu ñu loolu lu tax nga koy dawal mm. ma tax li may ñaan moo mm. tax li may ñaan euh, ministre de l' intérieur ak euh, ministre transport Air Malick teg ñu daan yu saf sap ah. yar ñu danoo réew syndicat yu a naan buñ jógee buñ jógee nan jóg jóg leen syndicat bu ngeen yaakaar jóg leen ñun dañuy defar Sénégal jub jubal voilà jubbanti